ay ayca bàkk ba jib na générique bi départ na jàngat làmb tàmbali na bàyyi jili Père Birahim mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fii ñu leen daan nuyoo ci wasaare làmb di am kontaante ak mbégte comme ni leen koy defalee saa su ne ci jàngat làmb ànd ceeg sama papa sama xarit Père Birahim ginnaaw loolu dama koy bàyyi mu nuyu mbokk internet yi su ko defee ñëweel waxtaan bi Père maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar. ah jërëjëf auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim rabbi israh li wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli hmm. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh maa ngi nuyu bokk internet yëpp hmm. ñi nga xam ne ñu ngi safoo wasaare hmm. ah, di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo Baye Jili dégg nga di ko teg ci loxo Adama Gàkku Kàggu Bachir di ko nuyu waa yëpp waa nga xam ne waa groupe bi di nuyu ñëpp di ñaanal sama yal yàlla na fekk ci ñëpp jàmm waaw di kontaan lool nag ci ñu toogaat tey ji waxtaan di ñaan ci borom biir yàlla bu mu suy mujj toog. amiin amiin waaw yàlla ñu dund te fekk te fekk te weesu ko quoi yàlla may ñu wér. Mm. loolu lu jar a ñaan la daal. Mm. ñii seetaan it yàlla may leen wér ak xéewal ak poos yi def dara. amiin amiin comme ni ko sama sëriñ sama xarit di waxee sa Alioune Sall. Mm. maa ngi koy nuyu de passage nuyu ñëpp. dëgg la jërëjëf. jërëjëf Père Birahim kon ñu koy jëfalaat bu baax di am kontaan ak mbégte di janoog moom saa su rek Père tey nag bëgg naa ñu waxtaan ci lu bari. li njëkk mooy arène nationale. dafa nekkoon dañ ko jël defal ko ngir mbëri làmb mu nekk premier stade boo xamante ni tey làmb gis nañ ko ñu jékki-jékki dem ba ci biir ñu ne stade Jom Iba Mar bi nga xamante ne xale yi dañ fa daan bëre dañuy mujjee arrêté bëre bi foofu li bépp activité bu am ñu yóbbu ko arène nationale gannaaw loolu noo ko gisee bañ bëgg a delluwaat stade Jom Iba waaw xam nga delluwaat Iba Mar Diop Iba Hmm. Euh, du woon pour bëri bañ ko fay def du woon pour bëri. dëgg la handball lañ fa daan def ak basket. Hmm. handball waaw handball lañ fa def. Hmm. waaw ak euh, def naa basket doom amu fa sax handball daal laa fa gisoon ñu di ko fa def. dëgg la dégg nga def ak ay yeneen manifestation ay. fa teg ay tapis. parce que place la woon boo xam ne jigéen a biir ville bi jigéen a dafa jige biir ville bi. ñu doon ko fa def léegi nag àddina dox na ba euh, ci nguuru gi ba Macky Sall gi yàlla defal ñu tabaxal ñu stade ñu suñu arène bopp. Mm-hmm. ci mandat wu euh, euh, kii nu mu tuddati Matar Ba. monsieur le ministre ñoo koy nuyu. Mm-hmm, ku baax koo bargal nit ku baax. koo xam ne mm-hmm. ku bëgg sport dox. maa toujours damay wax ne ko yow dama lay ñaanal rek yàlla may la nga am ndam boo xam ne bii. benn ministre mosu ko fee am. wallaay loolu nag. Hmm. waxuma ko pour wax ay dóor a tax ma ko. dëgg la dëgg la xamul sama kër xaw ma këram. dëgg la yaa ngi dee. Hmm. bien que defal nañu ay taraanga ba tayit hmm. boole ma ci. dëgg la waaye tekk wu ne bu nit bu defee lu baax dañ koy wax. wallaay def taraanga parce que bëgg na sport avancé daal. mu ngi xeex ci bëre ba mu ngi xeex ci football ba mu ngi xeex ci lu nekk. surtout làmb moom daal ñun mbër nag ñoo naqaree defaral. dëgg la. waaye moom bëgg na ñu defaru. moom mu ngi xeex pour ñu defaru waaye ñun ñoo defaruwul ñun parce que dañoo yaruwul yaruwuñu yaruñu suñu bopp. Mm-hmm. waaw parce que stade bi la ñu tabaxal ak ñu daan la ba ngay dem bay dajji stade yi di sànni xam nga loolu jaaduwul. Mm-hmm. léegi fa ñu ne woon dootuñu fa bëri la ñu delluwaat di fa bëri waat loolu suñu gàcce la. Mm-hmm. am na am na ci koo xamante ne nee na ma vraiment moom du amateuru làmb euh, mais bi mu gisee loolu dafa ñaaw dafa ñaawlu gest boobu geste boobu nekk na geste bu ñaaw. boo xam ñaaw lu tax mu war a ñaaw lu mooy ji bàyyi ji handball amul amul terrain boppam. déedéet basket rek a fi am terrain boppam ak mm. football. Mm. mais yeneen discipline yi bari nañu. Mm. amu ci benn bu ñu tabaxal boo xam ne bii yaa dañ ne la ko moomal sa bopp. Mm-hmm. kon ñun la ma la waxoon rek laay répété waat mooy tey ñun club yi ñun écrit ñun école yi ñoo waroon di ay ayloo defar bi. dëgg la. tey jii école sax xam-xam ñoo war a nettoyer. Mm-hmm. bëri nañu dimanche lundi bi ñoo yor nettoyement bi. Mm-hmm. jënd suñuy kotal jënd suñuy raxas du si defar yëpp ba set. beneen yoon keneen def noonu beneen yoon keneen def noonu ñu xam ne ñun mérité nañu loolu mm-hmm. waaye bu ñu demee bay dajji di sànne ko yooyu di yàq de dimbali wu ñu mbër bi mm-hmm. te Macky Sall ba xëyoon tëj tey ji wala Matar ba xëy tëj làmb ji fan lañ jëm mm-hmm. dañ di xas lu ne wax leen bëgguñu làmb nangam nangam bëgguñu suñu cosaan te fekk ñun ñoo bëggul suñu cosaan parce que mbubb mi buñ la ko boo ma ko ñawalee tey ji jii di dem jënti si bu rafet jox ma ñawal ba ma jekk la mu set baag passé baag defar ba maa koy defar nag maay passé nag bu tilimee ma soot su ma solee ba mu jekk ma xool fu tilim bu may toog ma xool fi may toog mhm. seet na wala seetul dëgg la mhm. wala fen waaw mhm. waaye boo ma jël ñawle bu rafet defar ko ba mu jekk tamit te man toppatoowuma ko boo liggéey si est-ce que di nga ma sawar jël li boobu noonu rek la àddina booy ñun ñun bëri ñoo yaruwul ku ci nekk bi nga yor moom yaruloo ko yaruloo sa club parce que mënuloo club bi dara waaw xam nga boo mënul club bi dara dégg nga amoo fa baat baat amoo fa benn cër tamit noonu rek lay demee waaw mu mu mm. mel ni. Mm. Euh, li ñu doon jàngat. wala mm. li ñu ci doon wax. bu njëkk bi ñu nee ubbi nañ arène national benn làmb dootul am département wu Dakar. bu mooy arène nationale. à part fii nag à part département de Dakar moom làmb dootu fi am ñu tëj euh, gis nga stade euh, Demba Diop bañ ko tëjeeg léegi mu war a nekk ci travaux ba léegi travaux bi départagul Iba ñu tëj ko tëj gi ñu tëj Iba yóbbu woon yóbbu ñu arène nationale ñu ci bari dañoo dañoo bañoon mais daa mel ni ñu ñuy ubbilaat Iba Mar Diop. mais dañ koy ubbilaat parce que ab yi dafa bari. Hmm. te yëpp xaju te am dépense yi bu ñuy war ci stade bi mënuñu ko promoteur yu bari mënuñu ko. Hmm. léegi nan la mujj def delluwaat stade bi parce que moo gën a yomb. parce que ñun ba ñu fay tëgg jamono yi xaw ma ñaata la mais booba location bi ay cent cent mille franc siège ya nga fay indi yaa koy luye. Mhm. baas yi yaa koy luye. Mhm. suuf si yaa koy indi. Mhm. yaa koy fay yaa koy delloo yow promoteur bi. waaw xam nga loolu moo gën a moyen frais. ci ñoom. promoteur yi parce que foo moo leen gën parce que foofu mii day millier làmb quoi. mii làmb dafa yàgg. parce que accès bi tamit dafa gën a yomb dem Iba Mar Diop moo gën a yomb dem dem Mm-hmm. parce que ñu ci bari bu ñu xëyee waa Pikine yeeg waa Thiaroye ak Kër Massar bu nag ñëpp bu ñu xëyee presque ñëpp Dakar la ñuy liggéeyee mm-hmm. suñu xëyee liggéey ba cinq ñu wax sangu solo dem làmb ja tas ñu ñibbi moo mm-hmm. dem bu agsi boobu moo gën a yomb moo tax bi ñu tëjee fële pénalisé woon la foofu làmb mën na fi am chaque jour te day fees del semaine bi yëpp mën na am làmb te day fees del te père làmb mën naa am Iba Mar Diop làmb am arène nationale. mën na nekk du joteeg ci. dara non parce que mbër yi mate nañ ko. mbër yi mate nañ ko. Mm. foofu sax ba ak tëngéej. ak tëngéej. Mm. fa mën na am làmb làmb. Mm. ba ñi di am làmb ceeb di am làmb ñëpp di ay làmb. dimanche jot gaa tasaaroo di bëri mais ñëpp dañoo bëgg a bëri biir Dakar. amateurs yi léegi nu ñuy def kon. amateurs yi nekkal sa public bopp. ah waaw du public sa bopp mooy ñaata match ñooy am. bari na mais match équipe yooyu day am nit. GA day football fële Gorée football fële dégg nga Pikine football kii noonu ay kii nu mu tuddati waa waa Tëngéej ji dem football fële. Mhm. waa Casamance yi dem football léegi tasaaro dem football. Mhm. bëri noonu la waroon demee. semaine bu jot kenn ku ne dafa waroon dem en dem kii ñu ne kii tey Casamance lay bëri ñu ne kii Kaolack lay bëri ji tey ñu ne kii Tëngéej lay bëri ji tey kële ndàngam ku nekk di mu sawar sa. Mhm. ñoom it ñu bañ cee laxas jaar. xam ne temps bi du leen fi xaar jamono bi doon xaar bëri bi temps la day jeex. nga waaye toog. boo bëriwul Dakar rek doo bëri ba mel ni boo bëriwul Dakar rek làmb Dakar rek la war a am. Mhm. c' ñaata tournoi simple ñooy am. bari na. est ce que mbër yëpp ñoo fay ñëw rek. déedéet da ngay ñii ngay dem Diofior tournoi Diofior. Mhm. Mhm. ñenn ñi dem seen dëkk séeréer yooyu. waaw yow yaa ma gën a xam dëkk yooyu. ay film la fu ne fu tëgg. fu ñu teg miis gars yi dañ fay dem. ñii tasaaroo jaar dañu tasaaroo bu dimanche bëri ko mu jeex ñu ñëwaat fii. Mm-hmm. bu si lundi bu vendredi wala samedi ñu commencé waat demaat beneen. Mm-hmm. noonu la lamb dóor bi war a doxee. Mm-hmm. ni bëri la bëri simple bi doxe noonu la lamb dóor bi waroon a doxee. dëgg la waaye ñëpp bëgg a fay ko ay bëgg cent millions par dimanche bi jot cent millions deux cent millions amul fenn. loolu amul fenn géej maa la wax lii de. Euh, Père léegi ginnaaw bi ñu joxee bi ñu foree ci weewu béy nii ñu jox stade Jom Iba Mar waaw ñu continuer di fa tëgg làmb. Mm-hmm. Euh, stade Léopold Sédar Senghor. làmb mun na cee jot. waaw waaw na événement yoo xamante ni lu mel ni Modou Lo Ama Baldé père foofu rek lañ ko lañ ko. waaw waaw c'est que xam sa événement bu nekk ak bisam. Mm-hmm. làmb ju nekk ak bisam. Mm-hmm. dafa am combat yoo xam ne ay mbër yoo xam ne yàlla may na leen popularité boo xam ne bii bis buñ ko bis boo koy tëgg mënoo ko boole kenn. combo yooyu. Hmm. boo koy tëgg mënoo koo boole kenn. doo ko bootal da nga naan bi bisu Modou Lo tey bii. Hmm. mënoo tëgg feneen làmb. Hmm. bisu Balla Gaye bii noonu. bisu Eumeu Sène bi noonu bisu. maanaam mbër yi am tur daal ñoom. Gris Bordeaux ak ñoom ñëpp tey jii. am i bis bu ñu leen am adversaire bu ñu leen siècle yooyu am. yooyu nag mënut a am toujours. at bu nekk benn yoon wala ñaar yoon lay am. wala six mois yi nekk benn yoon lay am. loolu nag des bu amee fu mel ni euh, amitié amitié lay xaj. Mm-hmm. wala fu mel ni Abidjan parce que stade bële bu ñu yar woon rek de xaj nañ fa. Mm-hmm. waaye ku fekkee ku ñu daan seen bër nga dem daal fee bu dee amitié rek ñu ko ay bagi xeer la nga fa am. kenn mënut toj da nga yenu xeeri toj. da nga mbëkk xeeri toj. déedéet mënuloo ko Iba Mar Diop mën nga ko. Mm-hmm. looy toj da wàcc dem seesi jàmbur yi. déedéet mënuloo ko. mais sanction nag monsieur le ministre foog muy am. Bira maa ngi wax yow di la déglu maa ngi lay wax dama ne sanction foog muy am ku yaree di mhm. ku ñu wan ne yarwuloo ku yar ñu tegula ci yoon ku yarwul ñu tegula ci lu yoon ku def loolu naka su noonu ñu xam ne lii nga def di yoon yaa ko tey ñu faj ko mais buñ ko seetaanee maslaa ko leneen dina yàqu te du ngeen ci mën dara mhm. gis nga am na solo mu nekk mhm. loo xamante ne message bu foor la waaw bu Père Birahim yëkkati ñu jox ko ki nga xamante ne mooy le ministre des sports monsieur Matar Ba di suñu papa nekk ku baax jébbalaat beneen euh, waxtaan bi wala boog beneen beneen message bi jébbal ko le président CNG suñu papa Bira Sène Bira Sène moom it ñu koy ñaanal gudd fan ak wér mais message bi am na solo lool te Bira Sène moom dinaa ñëw wax rek ci loo xam ne lii hmm. tamit dama ciy ñëw parce que gis nga bu fekkee ne les ku mel ni Alioune Sarr dafi nekkoon hmm. defi vingt six ans ñu dem ba mujj gi ñaan ah, yàgg na fii nangam nangam commencé nii ñu dem ba jëlee ko indi ko fi moom hmm. su dafa war a romb Alioune la waaye bu demee ba toog ñu naan ah, Alioune day kii yemul sax Alioune Sarr ci wee gàcceem la. Mhm. est-ce que xam nga li dëgg la may wax ngay teelaat dama ne la bu fekkee ne moom ci boppam dafa ñëw ñu ne yeex nañoo am ku mel nii. Mhm. wala kii de mel na ni Alioune Sarr. Mhm. wala boog moo raw Alioune ci dëggu ci jub ci rigueur. ak fulla ak faydaam ak rulaam deful loolu bu boobaa xoolal gàcce doo nga la yem. moom da daa mel ne li ñu gën a taxawaay bi ñu gën a soxla ci moom sax ci làmb mhm. mooy mu raw président Alioune Sarr li fi président Alioune Sarr def mu def lu ko raw waaw ndax bu tolloo moom mooy échec na waaw bu ko président Alioune Sarr rawee ci liggéey bi mooy échec na kon moom mu raw président Alioune Sarr rek moom lañ ko moom moo mooy njariñam waaw mu raw Alioune Sarr sax daa dina jafe parce que Alioune Sarr hmm. man bon man on est bien seq ñu dara jàmbale lañ bokk jàmbale lañ seq sama mbokk la man am na lien de parent bu am suñu diggante. Mm-hmm. bon dama koy wax toujours. Mm-hmm. man xëccoo ma dara man ab julit laa. te man li may nawe nit mooy diine laay nawe nit. wallaahi laay nawe nit. dëgg la laay nawe nit. fonk moom fonk ca ca tarixa bi nga xam ne gëm naa ko nekk ca. moom laa gëm. dëgg la ah, kon man contre ma kenn. parce que sama wërsëg yàllaa ko yor. Mm-hmm. sama dund yàllaa ko yor sama dee yàllaa ko yor. dëgg la te eh, jàng naa wa ma min dabbatin fil ard illa ala llahi rizquha mhm. mustaxara wa mustawdi'a kullun fi kitabin mubin mhm. kon loolu aaya boobu boo ko jàngee ñu firil la ko mhm. lu bon bon bon nga xam ne yàlla bind mu mu bind moo yor sama wërsëg moo yor sama lekk sama naan li ma war lépp dàbb bi melentaan bi gën a tuut sax yàlla yor wërsëgam wallaahi kon tey ji am na loo xam ne man amul lu may contrer waaye ku baax ma ne ku def lu dul yoon lu ma attoon dinaa ne am ànduma ci am déet loolu noonu rek la mais moom am na rigueur na fulla am na fayda am na mm. am na nag lenn yoo xam ne xëy na duma ko toog teel di ko wax naan naan nii la mel ak jikkoom lii déedéet mm. yooyu du ko xas parce que sequñu ko. Mm-hmm. waaw mais Bira daal lay encouragé. Mm-hmm. mu gën a góorgóorlu xam ne lu difficile lañ ko jox. Mm-hmm. Alioune Sarr mi ko géré ay at xam na ne lu difficile la yoroon. dëgg la lu difficile la yoroon kon moom dem na ba tem ci loxoom na jéem indi fulla ak faydaam ak rigueur ak ku nekkul yoon ñu tegula ci yoon. parce que làmb ji paase rek te ji war na cee wane woon boppam bu baax a baax a baax. làmb ji paase nii. làmb ju mag ju tolloon war na cee waree boppam. ñoo mhm. xam ne kii kat am na fula. kon combat yi di ñëw te ak. mooy diggante Lac de Guiers 2 ak Eumeu Sène. ak Eumeu Sène. Mhm. beneen bi mooy ñooñu xale yooyu nga xam ne tey tamit dañoo daan seen bër ñuy dajji seen yi ñooñu nag ñoo rawati sax ñooñu sax la waroon gën a wane boppam. Mhm. waaw loolu mooy yoon. man loolu laa gis man. waaw kon nag waaye bu dee lu ñëw ñu maslaa ko ah nangam nañu xool ki nañ ci xool téere yi. nañu xool euh, règlement intérieur yi nañu xool nii nangam na am na ci loo xam ne règlement intérieur doo mbubb mu si mbubb mu tilim fóot mu set rek. maa la ko wax njaay taas bu taxee ci sa yére bu weex. Mm-hmm. ah. Mm-hmm. du dindi rek. waaw dindi mu set wicc rek boo liggéey doon bay fànn bañ mu taxaat ma loolu laa gis. Mm-hmm. ngeen baal ma am na solo. waaw jërëjëf mbokk yi Père Birahim euh, dégg ngeen message bu am solo bi nga xamante ni lancé na ko ñu koy ñaanalaat bu baax a baax gudd fan ak wér rek ndax Père Birahim suñu père la père ma lay jaajëfal bu baax a baax. waaw di kontaan rek. di ñaan ci yàlla yàlla may ñu wér ak fekkee tal rek waaye nag xam nga fi mu ne moom hmm. dama ci jàpp rek waaye dama sonn nag dëgg la njaay nag na ci war nag dëgg la njaay wallaay xam nga yéen samay nit ngeen waaye nag wax dëgg yàlla waaw naay noppal nag dëgg la ndeysaan metti na la quoi xam nga nit nag hmm. li olof di wax rek pàq bi nga sax bañ la xàmmee la ko hmm. bis boo ko watee rek dootuñu la xàmmee loolu la waaw Ah. parce que boo demee ba làmb mënoo ci woon sotoo ci woon ëppoo ci woon dàqoo woon ci bëri. Hmm. nga dem ba tey jii lu ñuy wax boole la ci biir. Hmm. fu ñu waxee ci xalaat sax defe ne yow rek yaa am xamul loo wax loolu la. may sant yàlla ci loolu tey tey musu la. Hmm. ci ngeen di wax la kii lu mu wax mu am. loolu ki wax mu am kenn rek la. mooy suñu borom moom rek la. wallaahi te loolu boo demee ba demoon lu wax mu am boo ko naa ko rek bokkaale ñëw na dëgg la te bokkaale mooy bàkkaar bi nga xam ne yàlla du ko jéggal kenn waaw moo tax damay tiit sax ñu ne ma yow lu wax mu am hmm. déedéet damay tombe rek hmm. yàlla may baaxee rek ma wax mu am waaw waaye du sama xam-xam du sama man boo xam ne lu ma wax rek hmm. loolu am loolu dama ko ku ma ko wax sax damay tiit te loolu kuñ ko waxit woon ngaa tiit waaw maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di ko Thierno kii Thier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 ndaa naan laa ñaari yoon kon boo jaar booba laa mëne boo jaar fafa laa mëne dama mën ci mën ca mën ci yi boor ak ci yeley nu roowu maag ñoom cuuna rëy ma waa na roy ma maa ko baaxi ñii ma yor